alhamdulillahi hatta yarda wassalaatu wassalaamu ala sayidina muhammadin ilmurtada wa ala alihi wa sahabatihi zawi tamkini wa rida wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmin yalqa almuslimuna alfawza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 mu gën a tedd gën a sell gën a sakkan bay walis bépp nuyoo te benn nuyoo mënta bay walis ko ma tibbee ko ci sama xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di del siwaat ci kartanal yàlla ni ma la ko dëxalee woon rek ab jullit bu ko nattu dalee dafa war a delloo boppam ci boromam te xam ne yow matérielu sa boroom nga ay jumtukaayam nga moom moomu nag moom ay jumtukaayam lu ko ca neex sañ na koo soppandi te kenn sañut koo wax baatab lima waaye nit ki nag dénk giñ ko fi dénk mu yàgg yorab dénkaane bu yàgg dafa lay dem ba tuumaal la foo ne yaa ko moom waaye dénkaane bu mu yàgg yàgg yàgg ci sa loxo ba nga moomale ko sa bopp su ëllëgee bu ko boroom soxlaa ba jël ko mbaamu soppandiku ci rek nga gis ci sa bopp te fekk kooka moom ko xalalam dong la jëfandikoo waaye du xalali jàmbur waaye ñun dañ fee yàgg lool yàlla dénk ñu suñ bàyyi ñu yàgg feek moom nga xippi rek jàngee wax ci baay mu ne sama doom di mën naa wax baay bi nga lay xëy di la wax baay di jàng wax ba mën a wax baay jàng alquran di wax baay ba mokkal ko jàng xam-xam jàng école di liggéey ba tabax kër yore ay doom doom ya di ko wax maam yàgg googu yàlla dink la sa baay ji nga yàgg moom dangay dem ba foo ne yaa moom sa baay ji ndax yaa sama baay ngay wax moomale ko sa bopp sa baay mii nag bis bu yàlla defee mu jël ab dénkaane bi rek te yow yëgoo ko woon ab dénkaane bi ci moom da nga ko fay gis waaye nga ko moomale woon sa bopp dana tax mu métti ngay jooy sa bopp ak ñàkk mu ñëg teqali ko sa sago loolu wax la moo lay dal ci sa yaay ji yàgg gi mu yàgg ba ne yaa ko moom mu kañ ko ñépp ne sama yaay su ko defee maay taawam maay nàngam bis bu ko jëlee tamit rek nga gis ak soppandiku ci yow sa jabar ji noonu xolof dafa féex loo ko dénk mu moomale ko boppam kii mooy su ne nit ka ko kii nag mu ne sama baay la di yàlla kii nag mu ne sama yaay la kale na nga ne mu ne mooy sama aaw bi sama jabar bi kii sama ñaareel bi kii sama ñetteel bi kii nag mu ne sama ñeenteel bi bu ko neexee sax mu ne mooy sama séet bi kale nag nga ne sama rakk la yépp sama sama rek kële nga ne sama mag la noona ngay demee fii nag nga ne sama kër gi la oto bi nga ne sama oto bi tool yi nga ne sama tool yi sama jiw wi lépp yàlla la ko dénk nga génnee ci loxo bam set wecc moomale ko sa bopp yaa dëgër fit kuñ dénk nga lañ la dénk nga far nationalité moo ngi dal bis bu demee nag ba yàlla soppandiku ci ab dénkaaneem jël ko nag pexe xamatut sa baay ji mu xëy jël ko jël sa yaay jël sa doom jël sa jiw wi yàq ko jël sa tool bi jël jël lu ne sëriñ ñëw mënu ca tus yow nga dellu ca sang baay sang ko taxawal ko ci kanam jàkka ji ne allahuma innahu abduka waaye ba mu nekkee abdul abdullahi yàgg na de waaye yaa ngi koy door na mu ne allahuma innahu abduka yaa tarde ah mu ne lan nga ne ko abduka la di wabnu abdika wa bunu amatika kaana yashhadu an laa yéex na di waaye booba nag bala yàlla dénkee lii lépp boo doon bàyyi xel dénkaane yàlla bi ca loola ne ah, kii kan la nga ne jaamab yàlla la jaamab yàlla la de kii nag nga ne jaamab yàlla la waaye ñun dañoo féex a féex a féex ba ab xolof sax bu fi nekkoon ab tukulóor wala séeréer boo ne ko kii nag mu ne sama séeréer bi la sama tukulóor bi la sama naar gànnaar bi la waaw bu yàlla defee tasaruf day métti ba boo ca moom dara ngay door wax ne allahuma innahu abduka wala mu jël sa yaay nga ne allahuma innaha yéex na wa bintu amatika kaana tashhadu an laa ilaha illa anta yéex na kon nag yooyu yëpp moo ñuy sonal bu dénkaane yàggat yi sa loxo ba nga moomale ko sa bopp soo ko defee borom dénkaane ba bu ko jël rek mbaa mu jëf ca ak soppandiku rek sa xol bi am yeneen yëg-yëg yu wuuteeg ba mu ca defagul loola te loolu lépp baaxul looloo waral yàlla bu jëlee ab dénkaaneem li lay xamal ne moo ko moom bëggul nga wax genn kàddu lu dul inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna mooy xay ndeke li li fi neexoon nag ñun ñi fi ne ñëpp ci yàlla dong la ñuy dellu yàllaa ñi fi bàyyi woon ci coobareem rek kum soxla nga fuy ji ko loolu ngay wax yonent bi ne nattu bu la mën a dal nga wax bi le baat xéexée yàlla dana la ko remplacer damm damm booba mu jangal la ko yëkkati say dara ja jox la lu gën tamit li nga ñàkkoon moo dal umu salmata jëkkëram dafa génn àdduna abu salma di góor gu baax man jabar lool dépense ba doy kàddoom néew mu am njariñ te xam nga jëkkër yépp bi ci gën a xées mooy jëkkër ju ñàkk njariñ te bari coow nekk tànqintaan nag nekk taqantaan ki sa kaw rek sonal la foo tegee sa téléphone bi sax muy xool message yi boole koog fiir te amul benn njariñ kii nag jëkkër ji dafa am njariñ lool ba jëkkër ja génnee àdduna rek mu jàpp ne ku mel ni sama jëkkër desatut ci kaw suuf yonent bi ñëw jaali si ko ne ko waxal inna lillahi wa inna ilayhi na mu ne ko pour lan mu ne ko boo ko waxee yàlla yool la ca du ca xem dana la jox ku gën sa jëkkër ji mu ne ko yool bi de mën naa ko wax ngir moom waaye ku gën sama jëkkër ji moom góomoon danaa ko xamati ndax xamu fi mu wax baat ya rek yonent bi ne ko wax ko rek ba mu ko waxee wallahi jàpp liggéeyam ténji liggéey ba jeex yonent bi sànni ko buum takk ko yonentoo gën jëkkëram téeméer junne yoon di natt bu la mën a dalati yow jullit bu may bu may déglu bu ca dolli lu dul inna lillahi wa inna ilayhi rajiun boo ñàkkee sa baay ba wax ko yàlla dana la wutal baay ju remplacé sa baay ci yërmande da boo ñàkkee sa yaay ba wax ko dana la wutal ay mère yu remplacé sa yaay ci yërmande ndax ñàkk benn baay xam ay baay ñàkk benn yaay am ay yaay ñàkk benn rakk am ay rakk yu dul jeex ñàkk benn mag xadduna bi yëpp soppeeku ne nangu ñoo taxaw di sa mag moo dàq loola su boobaa tamit bu sa alal yàqoo wax ko buñ la dàqee ci sa bureau bi wax ko buñ la dàqee ci sa classe bi wax ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna ku ko wax loo mënoon a ñàkk ba tax nga wax ko danga nga xam lu ko gën ba fàtte ko en même temps yàlla tamit payoor la ca payoor bu dul jeex yonentu bi ne képp ku yàlla teg nattu nga wax baat yile ak lu mu yàgg-yàgg nattu la mu yàgg-yàgg nga wax lii yàlla dana la bindal ci payoor lu tool ni moom tabaarakallaahu ci fi la loolu dalee ba bis ni ki moo tax ma ne man usiba bi musibatihi fa ahdasa istirjaan wa in taqaadama ahduha katabalaahu lahu min al ajri mislahu wa mislahu yowma usiba xadis la bopp yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax mu nekk lu wér a wér a wér kon nañuy delloo suñuy bopp ci yàlla xeeti nattu yi la yépp yàlla muñ loo bu ñu dalee nañuy delloo suñu bopp mu ni ma ni yépp maanaam tamit ci ci ci yàlla suñ ko defee rekk yàlla fay ñu te gis nga waxoon naa la ko sabru ala muñ ba li la sa borom sant nga def ko moo ëpp doole ku ko def yàlla bindal la juróom-ñeenti téeméeri daraja daraja bi fi nekk moo xëpp diggante asamaan ak suuf ñetti yoon yow mi muñ ba li la sa borom sant nga def ko ci was wastabir li ibadatihi waaye boo muñee ba li la sa boroom tere yëpp nga bàyyi ko wan ko gannaaw loo defati dafa laa rëcc waaye toggoo ko ba mu ñor yàlla bindal la juróom benn téeméeri daraja daraja gi ci nekk mu xëpp asamaan ak suuf ñaari yoon gawam def nga wasbir ma nafsaka ma alladina yad'una rabbahum bil ghadaati wal ashi fekk na yuriduna wajhahu waaye nag bu fekkee da ngaa def sabru fii ci wala nabluwannakum bi shay'in min al xawfi wal juu'i wa naqsin min al amwali wal anfusi su boobaa mu bindal la ñetti téeméeri daraja daraja gi ci nekk moo ëpp asamaan ak suuf wenn yoon kon sabru xalaa moo ëpp doole sabru xan tegu ci sabru fii moo ci gën a suufe daraja ci mbooleem darajaatu sabru yi su ko defee nag kon jëlal sa bopp delloo ko yàlla bañ a tawat yonentu yàlla ayuba bu ko nattu ko dalee këram tas soxnaan sa ñaan ko baat ndax góor yu bari yow jëkkër ji boo mënatul ni tàppaas la tas boo wéeratul ni tàppaas la tas yusufa ayuba lu la ko dal dam ko dalee lu wax anni masaniya duru wa anta arhamu rahimina lu ca yàlla teg fastajabnaa lahu fa kasafnaa maa bihi min durin seeti ko ca anbiya aaya gis nga ko timit yonentu yàlla yunus ibnu matee da ko nattu bi dalee itam ñu bon ña mu xëy rek wan leen gannaaw jéppi dëkkateeg ñoom gàddaay ci lu ndigal sama borom dugg ca gaal gaal ga te loolu bu masaana am rek jàmm buy daw sangam moo koy waral ñu wantale bant ba dal ko gaa yi sànni ko ci biir géej gi jën wu mag ñëw wann ko nen jën ñëw wann jën wa ko wann mu nekk ci ñetti lëndëm lëndëm ak géej gi lëndëm ak jën wu njëkk wa lëndëm ak jën wu ñaareel wa waaye lépp da koo delloo yàlla ne laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimina lu ca tegu fastajabnaa lahu wa najaynaahu min alxammi wa kadalika nunjil muminina ba bu waxee li delloo ba fu yàlla yàlla ne na bam ñu xooyee xuyu nañ ko musal naa ko ca njàqareem ga noonu laay musalee ñi ma gëm seeti ko ca anbiya yi aaya quatre-vingt-sept jëm ba ca quatre-vingt-huit da ci fekk loola gis nga ko timit saxaaba yonent yàlla Muhammad yi ba leen njàqare dalee ala kulli haal ñu joxanteeg Abu Sufyaan randiwoo ba ca palaasu Badar ba waaye nag fekk badru suxraa la yonentu bi ne danaa dem de fekk gaa yi ñu ngi leen gaañoon ca Uhud gaañ yu métti yu bëri nanguwu ñoo dem juróom-ñaar fukki ñu dong ñoo ko topp ñoom ñu ne fekk gaa yi dañoo ñëw ne fekk inna naasa qad jama'u lakum fa axsawhum fa zaadahum imaanan lu ñu wax qaalu hasbunallahu wa ni'mal wakiil bañ ko defee lu ñu wax lu ca tegu fanqalabu bi ni'matin min allahi wa fadlin lam yamsashum suu wattaba'u ridwaanallah seeti ko ca Aala Imraan aaya cent soixante quatorze kon mën ci fekk gis nga ko timit tabaarakallaahu aa ah, ba ba njàqare dalee yonantu boobu mu ñàkk doom ah, di ab yonantoob yàlla mu taxaw ne rabbi laa tasarni fardan wa anta xayru waarisina eh, ibrahima ak ña ca aju ne ko yàlla yàlla ba ma bàyyi may ku wéet waay waay yow yàlla yaay gën ci kuy doonaloo lu ca tegu fa sajab naa lahu wa wahab naa lahu yaxya ki waxoon lii mooy sakariya mu demee ñàkk doom jabar ja màgget mu ne sama mbir duma ko tawat kenn demuma yàlla dong laay talal sama loxo laa tasarni wa anta xayrul waarisina lu ca mooy résultat ba naa lahu wa waxam naa aslah naa lahu sawjahu lu ca tegu suratul anbiya aaya quatre vingt jëm a jëm aaya aaya quatre-vingt-neuf jëm ba ci aaya quatre vingt boo demee dam nga ko ca fekk kon ñi ne ñëpp bañ jëlee seen loxo tàllal ko yàlla résultat ba mooy fastajab naa gis nga ko timit ab yonentu ñu koy pexeel pexe ya métti pexe mu nekk ñu teg ko bëgg koo rey mu ne duma ca teg dara man daal wa ufawidu amri ilallaahi ndax yëg naa ne inna laa basirun bil xibaar sama mbir yëpp jooyal naa ko yàlla résultat ba lan la fa waqaahu laahu sayyi'aati maa makkaru mu mucc ca mën nga seet ko suratu Xaafiri aaya 44 ba ca aaya 45. kon lii lekk mooy li am solo moo tax yonent bi daan def lu mbir métti métti ñàkk dafay wax ne allahumma ikfinii bi halaalika an haraamika wakfini bi fadlika amman siwaaka yow yàlla li nga xam ci lu lew fa bëri jox ma ca walis lu xaraam soxlawuma ko. nang ma sagloo li nga am ci ngëneel walis ko dul yow uma tuur sama xaramu kanam kenn waaye gis nga ko timit yonentu yaa ngóog gis nga ko yonentu yàlla ayub ah, yonentu yàlla yaquba ko mbir mi dalee mu métti lool ci ñàkk doomam ji la di jooy ba defee tut bët lu mu wax innama ashku bassi wa husni ilallahi waaye bu fa résultat ba xamee mooy ala kulli haal Euh, dem leen ngeen euh, jël sama yére bi sànni ko sama baay dana mujj rek euh, dana mujj gis maanaam njàqare ga demoon ci rek dàqu kon nag loolu lépp kon résultat yi yëpp mi ngi résultat wu muñ daal mu gudd mu gàtt daal mooy muuñ ku muñ da nga waaye ku dul muñ ba pencam yàlla doo muuñ yow jigéen gi say muñal boo lëggee da nga muuñee doom ju baax yow borom kër gilee sa jabar yi xaw a doy waar lool muñal boo lëggee sa kër gi dana taxaw waaye di xutur xutur yi dama am fulla ku ma lu xar bi ma jox xar bi la ñàkk fayda ba sa kër tas nga ñàkk fulla ba sa kër taxaw a ko gën xam fulla ba sa kër tas nga ñàkk fulla ba sa kër taxaw a ko gën waaye tamit yow élève bi di jàng xeewul teel muñal teel a xeewu waaye jullil de muñal tardi añ ya muñal dóori professeur yaag yépp bu ko liggéey rek da nga nekk cadre xilif say morom yow jàngkatu alquran bi muñal dóor ya rafle ga ak maanaam xas yaag ya ca xaju bu ko liggéey da nga am résultat wu nekk sëriñ daara mbaa nga nekk ilimaan mbaa nga nekk ambassadeur ah waaye yow liggéeykat bu le di xen waay saako ak loo mën a def yow mi ambulant di laxasoo ay darab muñal yaa ngi wër di xut koo jaay bu ëllëgee danga nga muuñ ba nga toog ñi lay wër ngay jaay yow muudu muudu bi dëkk bi métti na muñal wallaahi bu ëllëgee da nga yore say mbokk yore say mag yore say rakk tabax kër dugal ci sa yaay yóbbu ko Makka yóbbu ko Faas yóbbu ko ci ay teraanga yu dul jeexati kon daal ku muñ bu ëllëgee da muuñ waaye ku dul muñ ba pencam yàlla doo muñ mukk kon nag lu jar a xam a ngi nii nañ def nañ roy yonantu bi dafa daan wax ne ma asaaba abdan hammun wala xusnun fa qaala allahuma inni abduka wa bunu abdika wa bunu amatika naasiyati bi yadika maadin fiya xukmuka adlun fiya qadaa'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka summita bihi nafs maanaam samayta bihi nafsaka aw ansaltahu fi kitaabika aw allamtahu ahadan min xalqika aw istasata bihi fi ilmi alxaybi indaka an tajala alquran alazima rabia qalbi wa nuura sadri wa jala xusni wa dahaba hammi illa adhaba allahu xusnahu wa hammahu wa abdalahu makaanan faraxan hadis la seeti ko ci imaam Ahmad moo ko solo ak basaar abu yaxla xaakim yëpp solo nañ ko yonent bi nee na xamul benn njàqare buy dal ab jullit wala tiitaange jullit ba delloo boppam tàllal loxo yàlla ne ko yow yow yow yàlla man sa jaam laa di doomi sa jaam di doomi sa jaam bu jigéen muy jéebéer sama jubb mi sa loxo sa xatte dong mooy woy ci man sa xatte bi li nga dogal maandu na gërëm naa ko maa ngi lay wooxee ci wépp tur woo sa bopp wala nga wàccee ko ci sa téere bi lay wala nga xamal ko kenn ci sa yonantu yi wala yow yàlla yaa jagoo xamam istasarta bihi yaa ko jagoo fi ilmil ghaybi indaka maa ngi lay ñaan yàlla nga wàccee lool lépp alquran te mooy naataange xéewa rek loolu li mooy mooy jamonoy naataange rek ndax loolu li bu jotee lay mbayoon léppay ñor lépp neex ah loolu li nag balaa gën a neexati mu dajeeg tabaski sëñ Moussa Ka mu mën a way moomu ndeysaan pëlëb sëñ Touba boobu di ko héeme yàlla may ko lool ci ci olofal moo daan moo daan way sëñ Mbàkke Gaynde ma Cheikh Mbàkke la doon way ne ko Cheikh Mbàkke ñam naa la yaay mos dolli waat naa ne yaa raw tabaskeeb lool li kon rabbi yax jooju laat moo tax ma indil la ko mooy jamonoy lolli lépp ñor yonent tubi ne defal loola muy lollik sama xol muy alquran defal leer ak sama dënn muy alquran defal liy huññi sama njàqare muy alquran defal lii demee sama tiitaange muy alquran yonent bi nee na njàqare gu mën a dal nit mu wéet jàng ñaan gi yàlla dana ko demee njàqareem ga dana ko wattee ak mbégte yow yàlla ñu ngi koy ñaan di ca xuutu mbooleem jaami yàlla yi ko xam njàqare maa ngi la yóbbuwaale ci allahuma inni abduka wa bunu abdika wa bunu amatika naasiyati bi yadika maadin fi xukmuka adlun fi qadaauka asaluka bi kulli ismin huwa laka samayta bihi nafsaka aw ansaltahu fi kitaabika aw allimtahu aw allim aw allimtahu ahadan min xalqika aw aw aw istasarta bihi fi ilmi alxaybi indaka an tajala alquran alazima rabia qalbi wa nuura sadri wa jalaa xusni wa zahaba hammi yàlla nga ko defal defal ko mboolem ko xam njàqare jàng naa ñaan gi xuutu ci sama bopp xuutu ci mboolem borom njàqare yëpp yàlla nga wëlbati leen seen njàqare def ko muy xéewal ak ak mbégte borom njàqare nekk ca néegu sëy yu xat ya waaye waaye yow yàlla yaatal leen borom njàqare yooyu wujjee di tibbante ay tànk soppi ko ak juboo ak ak naataange borom njàqare yi nga xam ne njaboot gu doy waar moo leen tere nelaw ñi ragal gàcc ci seen biiri mbokk yàlla nga jubal seen njaboot ba mu soppeeku mbégte ci ñoom yow yàlla borom njàqare yi nga xam ne seen entreprise ya ma ngay daanu ña leen di teg ay taxes yu ñu mënul dara yàlla nga taxawal leen seen entreprise yi boroom njàqare yi nga xam ne xamuñ sax bu ñu reeree duñ xañ bu ñu reeree duñ ndékki xamuñu dara yàlla nga wattee leen koom-koom ak naataangeeg xéewal borom boroom yi nga xam ne dañoo yëg feebar ci seen i yaram mu tere leen a nelaw médecin ne mënuñ dara dee rek xaar yow yàlla yaa saafara yàlla nga saafara leen borom njàqare yi tëj ci seen kaso ya ñoo tooñ dañ leen a tooñ seen mbir a leeragut lépp yow yàlla yàlla nga xettali leen xuutu leen remplacé leen ci ñaan gi nga xam ne maa ko ñaan yonantu bee koo wax ma xam ne mu ñëpp mënuñ koo mokkal ñëpp mënuñ koo gis yàlla wër sëggal ñu ñi ñi tiim ko nii ma ne kon xuutu naa ci mboolem jaami yàlla yi yàlla na ko yàlla def ci barkeb yonantu bi defal ñu ci luñ bëgg lépp defal ci mbooleem jaamu yàlla yi liñ bëgg ñoom ñëpp yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def kon borom njàqare yaa ngoog kenn ku nekk la la dal rek ba nga xooxee yàlla baxee ko sa bopp rek sotti na kon tuddal naa la fi ay yonantu kenn ku ne ba nga jëlee sa bopp jox ko yàlla sa résultat ba mooy fastajab naa ca ayuba fastajab naa ca yonantu yàlla yunus ibnu matee fastajab naa te yonentu yàlla Sakariyaa ñàkk doom nga kon ku jël njàqare dal ci sa kaw nga jël sa ronka ngi tuural ko yàlla xaar ba mu guddi kenn gisu nga jàpp njàppul tooy xet tàllal say loxo yàlla ñaan ko billaahi danga nga xam ne yàllaa gaaw ci xettali ku jàq yàllaa gaaw ci huyu ko xoo moo ko bañ ba waxal boppam ne wa isaa saalaka ibaadi annii fa inni qaribun ujibu daawata daai idaa daani waay waay waay yow yow yonantu bi bu la sama jaam yi laajee ndax man damaa sori bañ may joxor ndax damaa jege ba ñuy diyaaleeg man fekk dañ ne ko ak a aqaribun rabbuna am baidun wala aqaribun rabbuna fanu naajihi am baidun fanu naadihi bañ ko waxee yonantu bi rek aaya ja wàcc ne wa isa saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daa isa daxani kon ku xoo yàlla xam ne yàlla ku jege la kon yàlla ku jege la ku ko ku ko mu xettali la laaj ko ba jooy ba deseetut bët waaye keroog bañ ko bégalee ne ko yaqu yusufa ngay dund te moom xamoon na ko daan leen wax ne inni la ajidu riixa yusufa law la antu fanni doo nii keroog bañ ne ko mooy buur ba gaaye ne ko gis nañ ko lam wax rek dafa ne ala ay diinin taraktahu ci ban diine nga ko bàyyi mu ne ko ala diini islaam diini abaihi wa ajdaadihi yusufa yaquba ne man qad tamma laay ala yaqub wallahi xéewala yàlla mën na ci yaquba bañ na ko sa doom ji sànku na ay xata ngi nii gisuñ ko gis nañ ko léegi mu ne naa mbaa diineem yàquwut ki yéen diine ngeen ko bàyyi mu ne ko diine jën ko bàyyee woon de tey la ko gën a gëm mu ne alhamdulilah sama xéewal mat kon waajur yu bari bu seen doom yi doo ña ngay ragal ndax nekkuñ fa bi yàqu doom yooyu la ñoo gën a doom joo xam ne foo toll yaa ngi loo sa baay rek loolu moo gën a xiis kàccloo sa baay mooy ne sa doom bu sa sa baay laajee an sa baay yóbbu na ci daara ja mais an sa doom ji mu ne ma ngi ci daaraay sàngam bi jàng de ndeke yow jàngoo kon kay yaa ngi waxloo sa baay lu dul dëgg yaa ngi ko yaa ngi waxloo sa sa yaay lu dul dëgg yaa ngi waxloo say mbokk lu dul dëgg an doom mu ne ma ngi ca bitim réew dafay liggéey nga nekkee fa naan sàngara topp jigéen ñi yaa ngi narloo sa baay te loolu baaxu leen lu nekk la nga tàggoo xoon ba dem ca rek nekk ca te bu ci humpanteeg sa waajur yi mukk waaye loo nekk lu dul loola te buñ la laajee ñoom ñi foog ne ñaa yaa ngi ca loola yaa ngi leen di ko di fenloo say soxna yi di fenloo sa mbokk yi di narloo say waajur yi ak sa xarit yi ndax foog nañ ne li nga tàggoo xoon ba dem ca ca nga ne ndeke yaa nga topp sa bakkan di dorogeeku di naan sàngara di def yu kenn xamut loolu lépp lu bon la kon yaa ayyuhal na amul ista'iinu bi sabaree ngoog moom lañu yàlla sant waaye wasalaati julli nag danaa ci ñëwaat sax mu gën a yaatu ndax dana ko tuddaat ndax julli dafa xam doole mooy loo xam ne bu ab jullit juddoo moom lañ koy njëkk a préparé ba nga juddoo par juddu rek lañ la njëkk a préparé noddal la liqaamal la tertoo la nodd ak liqaam ñi nga xam ne ñoom ñaar ñooy rakki julli kon moo tax na boo deexee rek lu ca tegu dañ lay jullee duñ noddaat duñ liqaamaat diggante baa jege ba jëruwul baamu kon julli ay jumtukaayam lañ la njëkk a tertoo yow julli bi nga juddoo nga ñëw màgg yonentu bi ne boo xamee juróom-ñaari at mbooleem ponk lislaam yi li ñuy bëri bëri ba njëkk nañ la ko njëkk a sant mooy julli mu ne sa at boo lànkee mu ne nañ la bàyyi ba nga xam fukki at boo lankee nañ la dóor fudd sa ndigg dóor yoo xam ne du nàccal yaram ya du nàccal cër du damu yax ba nga demee ba dee julli lañ la mujj defal moom lañ la mujj defal ci kaw suuf tëral la jullee la ba nga deexee bañ suul la wane gannaaw julli lañ njëkk rek la ci sa biir bàmmeel malaaka ñëw seet ndax jullee baax na mu baaxul su baaxee lépp baax donte xam na lu bon su bonee lépp bon donte xam na lu baax su ko defee kon mooy passeport mooy visa àllaaxira bu baaxee rek da nga borom jàll duñ vérifier passeport duñ vérifier identité bu ñu vérifié kayitu juddu waaye bu bonee ñu refoulé boromam téye ko donte xam na junnee passeport junne kayitu juddu junnee identité lépp keroog lañ koy gën a toroxal kon julli moomu fooree nii yàlla digal nañu ko ci juróomi xanam digal nañu nañ ko wattu ci xaafisu ala salawaati digal nañu nañ ko taxawal taxawal julli ak taxawee julli duñ benn moo tax mu ne wa aqimu salaata taxawal julli mooy julli koo xam ne boo ko taxawalee doo fen doo sàcc doo jëw doo lekk xal li jàmbur ndax inna salaata tanha anil fahsaa'i wal munkari ko mooy wa aqimu salaata waaye digal nañu nañ ko sàmmoxanteeg waxtu wa inna salaata kaanat alal mu'minina kitaaban mawquuta digal nañu nañ ko préparé laab ak ndox bu ñu xamee ngànt ñi tiim ci yaay walisina amanu ida qumtumu ila salaati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi waaye tamit digal nañu nañ ko defee ca mbooloo ma ci warkaxu maa raakiin ba yàlla texe xadeeg nit ñi seen ak mbon ñi xaaj ñeenti xaaj xaaj bu njëkk ba ne yaa santaane julli gëmuñ julli julli huñ ñooñu abu jahlin mooy seen njiit safara la jëm moom moom fala sadaqa wala salla moo ak ñam jiite woon ñoo moom maa salakakum fii saqara xaaloo lam nakku minal musabbina ñaareelu xaaj ba moo ne gëm nañ julli euh, waaye nag yow yàlla daal julliwuñu gëm nañ julli ne julliwuñ ku ko wax yahood yi ak maanaam nasaraan yi ñooy sa njiit yaag ñoom yéenay bokk dugg safara benn xur wu ñu tuddee xayu moom la alquran ne fa xalafa min baadihim xalfun adaau salaata wattabau shahawaati fa sawfa yalqawna xayan ñetteelu xaaj ba nag nañ julli ñu ngay julli mais ngistal bu ñu gaa yi gisee ñu julli bu ñu kenn gisul duñ julli bu ñu jiitalee ñu jàng saar yu gudd rafetal ko bu ñu jiitee ñun kenn ñu ñun kenn ñaawal ko ñooña safara lañ jëm moom ñoom moom wa isaa qaamoo ila salaati qaamoo kusaala yuraa'uuna naasa wala yadkuruuna allaha illa qalilan ñeenteelu xaaj ba rek ñoo mucc yonentu yàlla Muhammad mooy seen njiit yàlla nañ ca bokk ñu gëm julli di julli di ko rafetal sàmmanteeg waxtu waag laa bëgg ndox gaag teewlu gaag toroxlu gaag mbooloo maag njàpp la ñoo ñooñe nag yonentu bi mooy seen njiit mu daan wax ne sama xol li koy seddal mooy julli ñu nag moom ñooy bokk dugg aljana ci walladina hum ala salaatihim yuxaafisuuna ulaayka humul waarisuuna allazina yarisuna al firdawsa hum fiha xaaliduna kon loola mooy julli di jaamu yàlla gi nga xam ne mboolem jaamu yàlla yu ñu jaamoo yàlla ci saahir mu ci ëpp doole gële di muñ di jaamu yàlla goo xam ne mboolem jaamu yàlla gu ñuy jaamoo yàlla ci baatin mu ci ëpp doole ñoom ñaar yàlla boole ko digal ñu ko ci benn aaya ci yaa ayyuhal na am sta'iinu bis sabri was salaati inna laaha ma'a saabiriina kon dafa ñoo xoo ñu wuyu ko mu digal ñu boole ko dëxal ñu dafa ñoo dafa digal dëxal ñu istaino bi sabri wa salaati kooku digle la waaye inna laa maa saabirina dëxal la wala ñu mënuñoo nag ku bëgg a ku bëgg a ci lañ la ku bëgg jot liñ la dëxal da ngay nangoo def liñ la diggal ku def liñ la digal jot ci liñ la dëxal mooy ne ku nangoo julli nangoo muñ danga nga ànd ak ndimbalal yàlla ci lépp loo xam ne yaa ngi koy sóobu kon nag loolu mooy ñaareelu yaa ayuhaa ji nekk ci suratul baqara ma dëxaloon la ko def ca yow ñetti waxtaan xam naa bu subaa ci waxtu wi ci kartanal yàlla ma dugg yow nag ci ñetteelu yaayu haji boobaa ngeen xubbi ko mooy yaay wàlli si na amanu kullu min tayibaati maa rasaqnaakum waskuru lillahi in kuntumoo iyaahu taabuduuna foofu yàlla dafa ñuy digal ñuy lekk xalal ju lew bàyyi xalal ju xaraam dañ koy sant boole ko di ko jaamu kon nag topp leen ma suba ci waxtu wi insha allahu ma sof ak yéen li ma sosoon ak yéen wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu